kon nag dëddu leen gépp coxor gépp njublaŋ naaféq kiñaan ak jëw ginnaaw ay liir ngeen yuy door a juddu te mos ci mbaaxu borom bi nàmp leen ci meew mu sell mi dundal seeni xol ba màgg ci biir mucc yàlla kon nag ñëwleen ci moom nit ñi bañ nañu ko waaye yàlla fal na ko te teral ko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 doj wu tedd la wu ma tànn ku gëm ci moom sa yaakaar du tas mukk kon nag yéen gëm am ngeen cër ci teraangaam waaye naka ñi gëmul doj wa tabaxkat ya sànni mu na di doju koñ te doj la wuy fel nit di xeer wu koy fakastal dañu cee fakastalu ndax gëmuñu kàddu yàlla gi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 na seen nangu boroom bi tax ngeen déggal képp kuy kilifa muy buur ba gën kawe mbaa jawriñ yu mu yebal ngir ñu yar ñiy def lu bon te teral ñiy def lu baax ndaxte noonu la coobareg yàlla tëdde maanaam ngeen sax ci def lu baax ba wedamloo jàyyi li xamul dara li leen yàlla goreel nag bu mu tax ngeen mbubboo ko bay def lu bon